Saalum de lu baax rek baax rek amul lu baax rek laa mën a wax si moom borom baax la sama rakk moom moo topp ci man sama doomu ndey barke yàlla sama confidence sama petit frère lépp lu may doon def ak maag moom ñoo koy defandoo billaahi wallaahi am si benn bu barke yàlla moom ak ku jigéen ki yëpp. su jéngi tamit noonu la noonu la noonu la ma fonkee jàpp ma bëgg ma barki yàlla sama xarit billaahi musuma woon dara lu ñaaw moo tax man tamit ma jàpp ko delloo ko lool bëgg ko billaahi kañ nga kañ nga ko mujjee gis ñoom ñaar daa mujjee gisandoo fii ku jéeg ma la ñëwoon seet si dafa ñëw fii après mu ne day génn fépp ko sama rakk bi ne ko comme que damay génnaa génn xaar ne kaar man tamit dama bëgg génnaa ñu ànd ñu dem ak yàlla noonu ñun ñëpp ay xarit yo dafa ku jéeg moom day ñëw fii sama kër xamante na sama ñoom yaay sama nijaay sama tons yeeg ñëpp sama mag yu góor yi sama rakk yu jigéen yi ñëpp la xamante la ak yàlla du baax rek du baax rek baax rek parce que boo xoolee fii mbooloo bi moom xam ni ku baax kese la gis nga fii ay xale rek a fi nekk mu metti torop torop torop torop metti na torop moom ah, metti na torop amu dara lu ñu wax man moom maa ngi doog am lu ma metti sama àddina ñaari ni du ma fonk fonk billaahi ñoo dem seen yoon ñaari ma yàlla ñoo ma nax dem seen yoon mais doog am lu ma naqari nag dëgg-dëgg. seen choc bi dafa violent ko mu moom moom mu demee woon nii sax moo doon gën quoi parce que su demee après day gën a sonn moom cinq minutes rek la toog dégg naa cinq minutes kese mais fi jigéen ko moo daan si le cinq minutes kese bu muy dem nag am na bàyyi na fi kàddu baalu na ñëpp waaw su dernier kàddu yi mu foofu baalu na ñëpp àq baalu na ñëpp àq baalu sama waa famille baalu na ñëpp xaritam baalu àq parce que yàlla loolu waaw chrétien la fa tuub Euh, Fallou la tuddee Fallou mu sëñ Fallou la tuddee boppam waaw. ñoo defandoo lépp ñoo defandoo lépp ñoo bokk ñoo bokk même xarit en commun barke yàlla maa moom comme sama seex la lépp ñoo koy defandoo billaahi bilaay mel ni frère jumeau ay frère jumeau la maa xam lépp ñoo xëy defandoo lépp sama lépp la woon billaahi sama lépp sama confident la woon sama lépp barke sëñ Tuubaa yàggul rek bañ mujjee gisee ko xam ne xam nga jàmmale séq ak ñëpp li xew ci bés bi nii rek wane na ko te ñun ñëpp dañuy ñaan yàlla am li mu waaw di di di xam nga di ñaanalaat jaam yàlla bi fi jógee rek waaw yàlla xaare ko àjjana waaw xam nga di waaw di masaw waa Gàllem di masaw ñëpp di ñaanal secteur bi ñëpp jàmm yàlla bàyyi ñu fi tamit bàyyi ñu fi ba ci kanam a kanam ba ñu yàgg xam nga di ko ñaanal